yow doomu aadama boo fa tolloo mm. amatoo amatoo xel amatoo xalaat mm. boo xëyee sa yaay feebar di souffrir nga war ko jox su wootee ki nekk bitim réew léegi léegi nga mu ne ko dugalal ma mu dugalal ma moi j'ai fait temps à l'extérieur dama xam xale yi bu ñu nekkee si si yi si kaaje yi hmm. suñu jaayee seen bourse yi ba si saa si à dix-huit ñu ngi xool nan la ñu dugalee MoneyGram wala Western Union hmm. parce que le matin woo dañ leen ne leen seen yaay añul wala seen yaay dafa feebar dafa war a tëdd hôpital hmm. donc loolu boo ko amee nga gis yow nga nekk ci biir kër gi sa frère bi nekk bitim réew moo yore seen kër tey ñu ne la mbëkk baa ngi nii sa yaay bu xëyee nee la ah man de gërëm naa ma sàmb bi nekk bitim réew yow de jërë loo ma dara si cette question xale yi gëmatuñu dara gis nga ma wax la xam nga lan mooy dëgg ñu waxanti ko xale bu la nee man dee moo ma gënal toog damay dem xoolal noo koy dimbalee mu dem c'est à nos états de discuter avec. ñu leen tey de façon régulière. d'une façon régulière mën na nekk. mën na nekk c'est à nos de prendre les responsabilités. Mhm. gis nga dafa am lu ma ci bëgg a dolli. dafa am lu ma bëgg lu ma ci bëgg a mooy. Mhm. Euh, dafa am lu ma dégg Bougane wax ko benn émission bu ñu defoon temps yële. Mhm. mu ni l' entrepreneuriat. moo mën a régler problème emploi des jeunes. mais mhm. il a raison. Mhm. état bi. ñi amul liggéey ñëpp état bi amul fu mu leen dugal. Mhm. c' est pas possible c' à dire que. homme politique bu def meeting. promettre jeunes yi naa leen wutal liggéey bu ko kenn voté. waxul nekk. il faut que ñu def entrepreneuriat xale bi xoolal tey ji boo demee Casamance la fa nekk ci mango. mais na état bi dimbali jeunes yi ñu créer les pour que jeunes yi Casamance mën a créer seen ay mhm. unité de transformation des produits mhm. tey ji ñaata Guinée ñaata ñaata Guinée ñoo nekk Sénégal fii mat mhm. ëpp nañ deux millions mais ñun chômeurs ñu dañ nekk di liggéey deux millions de Guinéens qui travaillent au Sénégal mais ñun lu ñuy liggéey loo ñu liy liggéey lu dox Sénégalais mënuñu ko liggéey Guinéens bu jógee Guinée Conakry ñëw fii xool fii yëpp c'est des Guinéens il y mais li li ñuy def li ñuy def ah c'est pas un problème d'emploi li ñuy def li ñuy def mën nañ ko def sénégalais yi mën nañ ko def mais duñ ko def parce que dañuy dañuy choisir ay liggéey da gis koo xamante ne amul sax entrée en sixième des boo ko nekk tey ji kaa ñu jaay ay carte crédit mu lànk kaa ñu hmm. jël mango xool yi di ko jaay ci mbedd mi di ci am dara pourtant Guinée yi fi nekk nii ci la ñuy liggéey di ci ta di ci hmm. dimbali seen seen ay seen hmm. ay wayjur problème problème est devenu finalement un problème social mais li Bougane wax je l'encourage et c'est la vérité il faut que ñu développer l'entrepreneuriat euh, gis nga les problèmes nañ ko jël un peu plus profond fonds. Mhm. problème mu xaalis bi tamit da si am. Mhm. le Guinéen qui est là. 1000 mhm. francs bi muy am fii 10 000 francs la Guinée mën na am sax valeur marchande bi. benn la. mais problème monétaire bi gis nga euh, la euh, le problème de l' immigration. il faut que sunu état yi am ful ak fayda toog ak Union européenne. gis nañ ne problème des visas tant que wuñ ko duñ ko bàyyi. xaalis bi ñuy jot aussi tant détournement yi arrêté wuñ ko duñ ko kii. suñu tournée di ne non xaalis bi dugg li nga xam ne mooy dispositif Frontex boo xam ne peut-être que doon na découragé loo au moins ndaw yi euh, pour ñu dem puisque dañu leen doon teel a arrêté mais fan la problème am faay am ba tey yooyu yëpp lajj également euh, Fatou Abdou tu me parles de Frontex xam nga Frontex mooy lan mhm. dispositif de surveillance extérieure des frontières européennes mhm. ana le dispositif de surveillance extérieure africain extérieur africain Mm. C'est ça le problème. Pourquoi nous, on, on, on, on pointe du doigt tout temps l'Europe mm. Prenons nos responsabilités en nous, croyons d'abord en nous. C'est ce discours-là qu'il faut arrêter. Mm-hmm. Gis nga ñi demoon jàngi ñi si ëpp dañu ñibbi si parce que dañu xam nañu foofu yoretu ko. Mm-hmm. donc ñi bëgg a dem tamit tant que xamuñu leen gis nga ñuy egg nii tey. Mm-hmm. dañoo toog ñetti at pour mën a xam fan mooy yoon bi ñetti at du ñu mën a am kayit du ñu mën a am dara ci biir ci biir Europe. ñi si ëpp si ñoom biir Europe loolu neexuñu bugguñu loolu bugguñu suñu ay mbokk ñu leen di tumurankeloo si tali bi ñu leen dañ leen di delloo si comment dañ leen union européenne di fu mu nekk nii mbas bi la ñu xaar mu wàññeeku tuuti ils ont de l'argent la disposition pour le rapatriement de la dañ leen di delloo si union européenne pare nañu xaalis bi mobiliser nañ ko mm-hmm. donc ñi si ëpp ñi dem si gaal gi période bi dañu dellu si te su boobaa beneen crise lay créer mm-hmm. mooy ni que suñu doom yi dem nañu ñu ngi leen di delloo expulsion yi ñu ngi leen di tumurankeel ñu ngi leen di toroxal ñu ngi leen di kii hmm. alors que sunu état je parle pas du Sénégal Sénégal kese ñu waxante ko dëgg hmm. man Macky Sall ak Bougane Gueye Dany laa bokk yemle hmm. li intérêt wu Sénégal moom ma tax a jug gis nga Sénégal kese mënul régler problème bi Sénégal kese mënul régler problème bi gis nga Macky Sall du si Macron lay dem toog Macron di ko dicté nan la nan la war a def Macky Sall fu mu nekk nii y a cinq cent Sénégalais nga lan la war a def na woo président Guinée bu ñu fal ak bu ñu falul kum comme kum si mënta woo mu ñëw. Mhm. mu woo mauritanien bi mu toog mu woo malien bi toog mu woo gambien bi mu toog. Mhm. ñoom ñu toog nee leen hey kii ni nga ko waxee gis nga ni nga koy expliquer effectivement noonu la am. Mhm. VMS. Mm. VMS le système de surveillance maritime. Mm. gis nga mu ne leen hey sunu xale yi nañ lañ leen mën a téye. te xam nga am na lenn loo xam ne ñu ngi koy wax. te eh, mm. am na ay hauts fonctionnaires ministère des affaires étrangères. dégg naa seen ay communiqué ñuy wax dañu am politique de rétention mm-hmm. gis nga politique de rétention dañu feesal kaso yi rek. on peut pas retenir une jeunesse qui veut partir il faut savoir les accompagner. gis nga tey xam nga lan la ñu war a def. Mm-hmm. ubbi ay bourse comme américain yi ni ñu koy defee des loteries. Mhm. aujourd'hui un jeune sénégalais pêcheur qui veut partir. Mhm. un jeune sénégalais mécanicien qui veut partir un étudiant sénégalais de qui veut aller se renforcer. ñu ñëw ubbi leen liste. d'accord ba pare négocier si dëkk ay quotas. d'accord d' accord d' accord d' accord dinañ ci dinañ ci gën a xuusandi euh, Modou est ce n' est pas un échec quand même euh, de nos hommes politiques depuis l' indépendance comme la dit d' ailleurs euh, benn ancien ministre à savoir maître Amadou Sall ci politique ci politique migration bi nga xamante ni nee na depuis indépendance am politique yi moom Sénégal ñoom dañ cee laaj. non mais en fait dañ dafa am politique moo politique migratoire. un ancien ministre moo ko wax. non politique bi sax moo existé wul. ah a pas de politique amul amul en fait. kon

passage ils exposent ils exposent même leur vie xam nga dëkk bi dafa am lu nga xam euh, euh, immigration bi nii dafa mm-hmm. bokk ci li wax la les crimes organisés mm-hmm. c' est comme le terrorisme c' comme le le de médicaments c' comme la prostitution yooyu yëpp yooyu yëpp dugal ci biir ci euh, mm-hmm. crime organisé crime yooyu dafa am ñu koy organiser ay nit ñoo xam te créer ay groupe di ci gagné xaalis les ñii dem c' est des léegi ñan ñooy les responsables mooy dafa là les l'État peut mettre en en main sur ces gens là mm-hmm. léegi la nekk géej gi mais bu njëkk suuf si man en 2005 dem naa ba Maroc dëkk bu ñuy wax Ceuta ak Melilla. Ceuta mhm. ak Melilla ñu ngi ci biir territoire marocain. Mhm. mais Espagne moom mi ngi mel rek Saint-Louis. Mhm. nekk ci biir Sénégal mais France moo ko moom. booy dañuy fexe ba dugg Ceuta wala Melilla bu ñu duggee Ceuta Melilla ñu ngi ci territoire espagnol. comme fii booy dañuy ñafe ba dugg Ndar bu ñu duggee Ndar ñu ngi ci territoire espagnol. ndax Ceuta ñu ngi biir Maroc. mais espagnol léegi booy dañuy dox jaar fi Mauritanie Almería mm. espagnol yi ak ak marocain yi dañ fa def ay ay ay barbelé en fer mm. nga xam ni booy et boo yi dañ dafa jege benn fore xale yi dañuy dem ba foofu dagg matt bi wéer ko ci ci ci kii bi ci ci ci grillage yi taal ko non ah, ah, jël ah, tëb mais boo tëbee dugg il faut booy jëlaat matt yi joxaat na ko nga yéegaat <laughs> mais sa fa compli ba pare c'est électrifié mhm. boo ci tegee sa loxo nii bu la boo boo defee fausse manœuvre rek sa sa yaram bi yëpp lay yàq on est allé jusque là-bas les autorités marocaines wan ñu mhm. da nga koy fekk ay dàll ay carte d'identité ay maillot Sénégal ay maillot Guinée Conakry ay Camerounais toute l'Afrique de l'Ouest booy foofu la ñu doon jaar quoi xëy na pour eux mooy dugg sa taa wala Melilla mhm. finalement

ni ñi ñi di wax tey mën nañu jàpp loolu que Mimi entre en guerre aujourd'hui non Mimi xam nga Mimi Mimi dafa am ambition. Mm. te nëbbu ko on. non non nëbbu ko nëbbu ko Mimi mm. Mimi génn këram maison këru fonction génn ko bu yàgg. Mm. génn këram fonction bu yàgg bi nekk këram këram fonction bi nekkoon ah, lycée Lamine Gueye Mimi génn quitté na ko bu yàgg mm-hmm. Mimi bi Macky toogee ba am deuxième mandat ba mu jubbu ko conseil économique social ci la toog commencé di préparer day mm-hmm. toog ak ay kilifa yu APR mm-hmm. di leen wax ay ambition ci wàllu politique mel ni ku koy yóbbante président Macky Sall ah. le président il est au courant de tout ça gis nga fi mu Touré lancé na fi benn benn benn projet bu ñu wax jokkoo CSE Hmm. pour wutal ay jeunes un million d' emploi hmm. CSE amul vocation di wutal kenn liggéey c' est pas la vocation du du CSE mais est ce que c' pas un projet politique bu nekk derrière tout ça le hmm. président Macky était informé tout ça léegi nag boo nekk président de la République mais may ay occasion mu dem waxtaan ak sénégalais mais boo dégloo discours elle elle adressée aux sénégalais à la jeunesse et à la presse donc donc donc je pense que mais est ce que crime la

ci benn. absolument léegi nag. Mhm. mi bu fekkee am na xam-xam bi sawar na am na fit mais mhm. Sénégal il faut nga am xaalis. très bien waaw mhm. pour pour xaalis moom boo ko amul liggéey bi day métti quoi. <laughs> Euh, ñu bàyyi la nga àddu ci aspect boobu waaw. ah waaw wax dëgg yàlla ni mu ko présenté nii. Euh, waroon na gën a rafet. seen diggante ñoom ñaar. parce que nag ak lu ñu munti jàpp sénégalais lambda. xam nañu Mimi Touré jigéen la. te jigéen bu am la am fayda la. Mm-hmm. Euh, amoon pas-pas si président Macky Sall. Mm-hmm. incarné fi kii ay institution mm-hmm. et tout dernièrement sax si si si dispositif communication seen parti. si dispositif communication Macky Sall. elle était au premier plan. daanaka fu ñu laalee woon Macky Sall rek elle était au premier plan moom moo doon kii. léegi nag leneen li si mënti am mooy ni que. ah defe naa ni tamit Sénégal tollu na foo xam ne tamit war nañu mun a gestu jigéen ñi comme njiit. Mm. suñu amee ñu mel ni ñuy ñoom Fatou Abdou ñii ñu mel ni comme Mimi Touré. Mm. am xarañ bu toll noonu. am valeur bu dañoo yàgg des ca gannaaw aussi. am noonu defe naa dañ leen war a dooleel. waruñu mm. leen euh, wàññi. Mm-hmm. et diggante moom ak président wu Macky Sall Macky Sall nag moo am pouvoir nommé ki ko neex ak fu ko neexee. Mm-hmm. loolu moom il faut ñu nangul ko ko. moom mooy dugal ko ko neex ak fu ko neexee. Mm-hmm. liñ ci wax digganteem ak sa Seck ak dafa yàbbi dafa kii yëpp loolu yëpp c'est kii mais Mimi Touré Macky Sall. si seetaan leen te ñu jox tamit euh, Mimi Touré. Hmm. possibilité bi mu kii fii ku nekk war nga mën a am ambition man de xam naa ni moom. Hmm. Hmm. su nekkoon jigéen bu taxawee ma fa kii puisque xam naa ni kenn du fi wax waxu troisième mandat. ah ok ah, léegi on termine li ñu dese ci waxtu daanaka waxtu bi sax jeex na euh, euh, élection yu xewoon ca États-Unis Joe Biden gagné ko nga yëngatu ci wàllu immigration mu mel ni dafa doon ab ouf de soulagement ci certains africains yi nga xam te ñu ngi dund foofu lan mooy expliquer loolu. pourtant États-Unis bi ñu am ñeenti at yi mhm. boo xoolee ñëwul sa Afrique pour léegi ñëwul Sénégal ñëwul Afrique ñëwul fenn ci Afrique woo mhm. li jëm si nit ñuul yëpp mhm. tilimal la saaga la gàq la làmminam dafa xaw a nekk làmmin bu xaw a ñagas le jëfinam tamit xawoon mu am jëfin bu métti si immigration man ay muuram sax bu koy kii damay xalaat Hitler moom ay kii Hitler laay gën a xalaat si jëfin ñuy sant yàlla boobu mu toogaatul parce que bu toogaatoon moom ragal nañu immigration wala diplomatie dina xaw a euh, faagaagal mais nag ce qu'il faut comprendre mooy ni que mm-hmm. euh, américains yi mm-hmm. Euh, weddi wuñ ko bañuñu ko mm-hmm. ñu bëri jàpp ni américain bi américain yi weddi wuñ ko bañuñu ko mm-hmm. euh, ñu ñaar yàlla nag euh, kii toog mm-hmm. mu changer un peu diplomatie bi États-Unis dellu si waat si concert des grandes nations participer si mouvement bi nga xam ne ñu ñëpp si loolu leen doon yaakaar mooy li si d'accord alors Mout waxtu wi jeex na ban appel ngay def ci à l'endroit des Sénégalais ak politique yi surtout ci tolluwaayu réew mi nga xamante ni ni xaw na yëngu lool ak wàllu politique Euh, sénégalais yi. Mhm. Euh, li ma leen di wax rek mooy. Mhm. Euh, ñu bañ di topp homme politique yi aveuglément. Mhm. moo xam ci pouvoir bi la nekk wala ci opposition bi. képp ko nga xamante ni. ñëw na laaj seen kàddu indi proposition boo nga xamante ni am na ko proposition bu concrète bu leer bu pertinent mhm. ñu ànd ak moom mhm. jox réew mi mhm. mais ku fi nekk di xaxar di xaste wala bu Macky waxee lu Macky def nga ni baax na lu Macky def nga ni baaxul teg loolu rek sa argument politique ci loolu rek je pense que loolu mënul changer réew mi quoi Sénégal laa li koy changer mooy un programme cohérent pertinent précis absolument jërëjëf ñu di la gërëm bi jërëjëf merci Diallo yow itam ñu di